حافظوا لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وفي julli السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bi nu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi jaajëf la Cheikh Xadim mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi di ñëwaat rek ci jotaay yi nga xam ne dairatu muxaddamatul khidma baaxoo nañ ko amal ci bis yep ci koor bi am ci bis yo xamne ay bind lay don set lu am solo lu mata xam ñu indi ci ay bind ngir am luñ ci mën a am ci bis yo xamne ay mawduu lay don tan tam bu yitel waxtan ci am ci bis yoo ay fataawa lay doon moy laaj ak tont ñu ñëwaat nak dalal ko xamne ne gën ko ci jotaay bii defe bi moy ñettelu ñetteelu yoonam ci bi koor gi teroo ak léegi seen Seexuna Mbakke am lu wëddut ngeen xam ko ni mako ko yitteem yep ci xam-xam la jëm dundu xam-xam ak dundu la ak tasaare ko te nim taxawé ci liggéey bi loolu ab tegtal la ci luñ ko wacc xam-xam sawar la ci kon moom lay fasiyena dal tay inshallah ñu war a jàngat nag bu am am solo mi al bid'atu haqiqatuha wa ahkamuha li ñuy tuddé bidah li wala li tuddé bidah deug deug bidah mo moy lan bu né bidah deug deug bidah ak ay àtteem wala ma tam waxtan bi waxtan ko nak amna na solo lool ci jamono ji ñu tollu ndax nañ ci jamono jo xam ne bidaa yi bari na lol yo xam dañ ko rax ci bir diine ji ba mel ni ci la bok ta bok ci ban li ki son di ca daj lu ne japp ne diine la ta fek bi dal lol na kon leeral ko ba nit ki xam lamuy dund ndax nit ki limu ab jul dama ma moy dund sunna su set ndax lepp ko wacce ay àtte ci alquran jaarle ko sa sasa mo leer leeral sunnam sunnam so se nak jef ju ca tege ya, mo la sun borom di nangu waaye saa bu fi baye sunna nak sos suñ yooyu ya, bop yo ya xamne amul fenn fu mu ak diine lol kon man nit ki man la ca sonn te du ko jural njariñ tal bari na lol lol ci ci ci ci ci bir lu ñuy bi da yu bari yu dam ba niru ne ak jaamu niru ne sunna la te fekk sori nak kon moo tax waxtaane woon am na jam am na solo lool ci jamono ji ñu toll kon ngir bañ a e, xóotal e, ngir waxtu damay bàyyi si naa kon gannaaw dañ ko indi ngir mu jàngatam tom boobu mu soobu ci noonu leeral nu dëggi dëggi bidaa ak lan mooy atem sin seex naa tafaddal maskuura su ñaan suñu bol defal tawfiq bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam bokk yi teew yëpp ak bokk yi ñuy déglu yëpp fu ñu mën di nekk. ni ko sëriñ sëriñ Mor waxee waxtaan wi ci bidaa lay jëm lan mooy bidaa dëgg-dëgg yan ñooy àttey bidaa. li mu wax it ci solos waxtaane bidaa moo ci nekk mooy lu jara waxtaane la te itam jullit ñi dañ ci faral di wuute ñii naan nangam bidaa la ñii naan du kon dana baax léeg-léeg ñuy bokk di fàttaliku di nafaraat di xoolaat lan mooy dëgg-dëgg yi bidaa bidaa nak baatu arab la wolof baatu arab bi la jël wolofeel ko nan bida bida la jël ci arab wolofeel ko nan bida kon baat bi arab la cosaan san bu ñuy wax maanaami kon maanaam baatu san li lañuy wax te itam atay ci wacc ci baati arab yi lañ ko tabax moo tax ki waxub àtte moom booy leeral maanaam yi maanaam ci araab nga koy leeral bidaa ci arab dafa am ñaari maanaam ni ko baat yi lislaam bi jëfandikoo yépp daanaka ame ndax baat bu lislaam bi jëfandikoo lu ci bari bi lislaam di ñëw dafa fekkoon baat bi nekk fi am lu ci nit ñi di jublu ci seeni wax bi lislaam ñëwee jox ko meneen maanaam bu ko defee baat bu lislaam jox maanaam mu bees ku koy leeral da ngay wone maanaam cosaan ma mooy maanaam mi ko nit ñi daan jëfandikoo di ko ci jublu lu jiitu lislaam di ñëw ak bi ko lislaam jëlee maanaam mi mu ko joxaat maanaam cosaanu bidaa mooy rek lépp luy door a xew luy door a xew mooy lépp lu ñuy door a def lépp lu ñuy door a amal rek ci cosaan arab daan ko tuddee bidaa mën di doon ak wàllu bu mën di aju bu dee lu ñuy door a def la rek bi ñu koy door def dañ naan bidaa la mooy lu ñuy door def la maanaam cosaan moomu bi lislaam ñëwagut bu ñu mësaa wax bidaa loolu rek lañ ci daan jublu mooy nàngam jii daal ñu ngi koy door a def bi lislaam ñëwee ba jox ko meneen maanaay teewut léeg-léeg ñu jëfandikoo baatu bi bidaa te jublu ci maanaam cosaan ku mel ne Seydina Omar ibn Xattaab bi mu nekkee xalifa jiite jullit ñi dafa masa génn romb nit ñi ci jàkka ji ci weeru koor ñuy naafila waaye nag amuñoon jenn ilimaan bi leen jiite ñoom ñëpp ñii dañoo beru di julli seen julli bopp ñii beru di am ñaar ñaar ànd fii wala ñett wala ñeent yeneen juróom ànd fële yeneen ñett ànd fële am ñu beru fële mu romb leen na waaye ñii de bu ma leen dajale woon wutal leen jenn ilimaan daal wane nag loolu lay xalaat ginnaaw ba mu def ko digal ubay ibn kaam muy jiite ñépp ñuy àndandoo di julli genn julli genn naafila genn ilimaan mu génnaat bis romb leen ki mu àndal moo koy nettali lu ñu dem ba ne lii de biddaa rafet la li le bida bu rafet biddaa boobee da caa jublu manam tosan moy li mi ngi doram wut iliman muy jite nit ni nafida waru ko mi ngi doram waaye luy doram lol lu rafet bida bida da ca jublu rek kon manam tosan moy luy doram jamono yonent sallallahu alaihi wasallam sallam weeru koor daa woon ci dajaloo di am jànn ilimaan mu jiite mbooloo mépp ñuy naafila jamono Seydina Abu Bakar amutoon njëlbeenu jamonom moom mi Seydina Omar amutoon ci biir jamono nga ko xalaate digle ko ñu tàmbali ko moo tax mu ne lii day bidaa bu rafet la mooy luy door a am la lu rafet foofu kon bidaa la jëfandikoo te jublu ci maanaam cosaan mooy kon lépp luy door a am rek loolu kon moom la bidaa di firi ci cosaanu làkku arab buñ ko masaa wax bu jiitu lislaam dañ ci jublu rek luy door a am ginnaaw lislaam it danañ koy wax li ci jublu loolu ba léegi waaye nag lislaam am na maanaa mum jox bidaa meneen meneen maanaa moo xam ne it am na àtte yu ca yu ca topp yu ca toftalu meneen maanaam yi dañuy tudde kon maanaam lislaam la mooy maanaam ñu ko lislaam jox maanaam moom moom buñ ci waxee bidaa te jublu ci maanaam moomu mooy di jaamoo yàlla di jaamoo yàlla lu yàlla yoonalul di jaamoo yàlla jaamu gum yoonalut moom yàlla jaamu goog moom yàlla diglewu di jaamoo yàlla nu mu diglewut loolu mooy bidaa ci maanaam ko lislaam joxaat mooy kon lu ñu sos lu amul cosaan ci alquran amul cosaan ci sunna loolu mooy maanaam mi ko lislaam mu di jox kon loolu la ñuy tuddee maanaam lislaam ñaari maana yooyu nag dañ fee des maanaam cosaan ba léegi danañ jëfandikoo baatu bidaa di ko ci jublu maanaam lislaam it danañ ci jëfandikoo baatu bidaa di ko ci jublu ku mel ne ngir wane ne ñaari maana yëpp dañuy jëfandikoo ba nëgëni ku mel ne ibnu kasir ibnu kasir day boroom xam-xam bu mag ci tafsir doon boroom xam-xam bu mag ci xadis boroom xam-xami xadis yi bu ñu leen di lim dañ ko ciy boole boroom xam-xami tafsir yi bu ñu leen di lim dañ ko ciy boole ñaari xam-xam yooyu bu ci nekk da cee def liggéey bu mag boo xam ne dañ ciy sukkandik bu dee tafsir foog naa ñu bari xam nañ tafsiram moom tafsirul quraan al azim ñu di ko waaye rek tafsir ibnu kasir dafa wax ne bidaa ñaari xaaj la ñaari xaaj la danañ wax ji daa jublu ci maanaam mi ko lislaam mu joxe misaal na mi ngi mel ne ba yonent bi di wax naan lépp lu sos bidaa la te lépp luy bidaa ak réer na yonent bi foofa bidaa ci maanaam lislaam la ci jublu maanaam mi ko lislaam jox moom la ci jublu mu ne waaye dana jëfandikoo biddaa itam jublu ci maanaam cosaan ma rek mañ ko daan jëfandikoo rek lu jiitu lislaam bi ñëw joxe ci misaal ne mooy lu mel ne Seydina Omar la mu waxoon ba mu diglee ñu dajalee naa fi la mu rombuwaat leen daal ne biddaa bu rafet dee ngi nii kon wane na ne biddaa wala biddaa ñaari maanaa yépp la jëfandikoo ba negal biddaa ci maanaam mi ko lislaam jox nag bu ñuy wax biddaa loolu lañ ci jublu bu ñuy wax biddaa maanaam moom lañ jublu biddaa boobee nag dafa am lu koy tënk mooy yi tax mbir nekk biddaa ci maanaam mi ko lislaam jox dafa am yi koy tënk yi koy tënk mooy day doon mbir moom nit kee ko sosal boppam ba ñuy wax nag waxoon nañ ne ak jaamu yàlla lay doon loolu dañ ko jiital mooy kon mu doon ak jaamu yàlla mooy lu nit jàppe ak jaamu yàlla tam sosal ko boppam sosal ko boppam mooy mëse yonente bi sallallahu alayhi mësu koo def mësu koo digle mësu koo def mësu koo digle mësu koo de mësee su koo def mu yëg ko ànd ci bañ caa wax dara yooyu yëpp mës lan amu ci kon kii moo ko sosal boppam ak jaamu yàlla bu nit sosal boppam loolu biddaa la ci maanaam mi ko lislaam jox ci misaal rek ku ne woon am na geneen julli farata ci bis bi juróomi julli farata mooy yonent bi indi am ku ci dolli benn nag naat ne nag bis bi juróom benn julli farata ci am daal ci yokk benn kooku julli googu da koo sosal boppam da koo sosal boppam loolu biddaa la am na koo xam ne dafa mas a woor kooru ngàtt nga waaye ci xalaatam moom ci xalaatam mu jàpp ne lu mu gën a mettee rek ci lay génne lu mu gën a mettee ci lay génne ci xalaatu boppam rek daal ne kon moom day woor ba noppi nag boole ci taxaw ca naaj wa taxaw ca naaj wa bañ a toog bañ a dem ci kër gi bañ a wax itam bañ a wax ak kenn fekk ñu ngi ànd ak yonent bi ci mbooloo mi yonent bi moo moo doon dem ñu ànd ci kenn ci ñi ci ànd def noonu ñu ko daan tudde abu israil yonent bi seen ko ne waa keekan la leelan la seen ko rek daal xam na ko lu yàgg mu taxaw ca naajoo rek toogut demul ca kër ga boobu te kenn ñu ne ko ak ah, kee abu israel la moom daa war waaye nee na moom day taxaw ci naaju du wax ak kenn du dem ci kër gi du toog itam mu ne leen nee leen ko nee leen ko na dem toog ca kër ga te wax ak nit ñi te àggale kooram te àggale kooram mooy lim ci dugalaale jàpp ne lu baax la bokku ci jàpp ne mën nañoo jàmmoo yàlla noonu jaamoo ko di taxaw ci naaj ak di bañ a toog ak di bañ wax ak nit ñi yonent bi xamal ko ne loolu bokkut ci jaamu yàlla gi te da koo niseeroon niseer niseer mooy ko nit loo xam ne da koy warlul boppam danaan warlu naa def nàngam ngir yàlla loolu li ciy cosaan mooy bu ko nit waxee da ko def waaye fi mu koy defee nag mooy bu lu jaadu bu dee lu baax bu doon lu baax la kon yonente bi du ko tere ndax nësër la waaye teewut la ca baax la ko ne na ko wëyal la ca baaxut mu ne ko na ko bàyyi muy di taxaw ci naaj ak di ñàkk wax ak yu mel kon kooku mooy dafa fekk loo xam ne day mel ne ko sosal boppam jàppe ko jaamu yàlla muy taxaw ci naaj ak bañ wax ak bañ a nekk ci naaj bañ a ko bi ne ko loolu bokku ci na woor te bàyyi loola xam na nu itam ñetti waxambaane yu xér yu xér yoo xam ne dañoo bëggoon lu baax lool bis ñu waxtaan ci seen biir ne nun daal dana war a dem ca kër yonent bi sallallahu alayhi laaj waa këram nan lay jaamoo yàlla bu faratay jàllee ndax nu ko ci bu faratay jàllee nan lay jaamoo yàlla ndax nu roy ko ci ndax seen bëgg lu baax ba ñu demee laaj ko waa këram nan la yonte bi jaamoo ñu wax ko ko ñu wax leen ko ah moom de danay woor ngàtt nga léeg-léeg bu guddee itam dana am diggante bu muy julli dana diggante bu muy nelaw wax ko li muy def wax leen ñu wax ñu wax leen li muy def ñoom loolu xaw woyof ci ñoom daal ñu ne ah bi xëy na loolu jig na ko moom bu yemee ci loolu mën na koo jig ndax yàlla jéggal na koy bàkkaaram yi jëkk ak yu mujj nun nag amul loolu kon noonu loolu doyut ci noonu di di di woor léeg-léeg di bañ a woor léeg-léeg ak guddi gi ngay nelaw tuuti di kii tuuti loolu daal doyul kenn ci ñoom daal ne man daal damay dëkke woor damay dëkke woor keneen ki ne man damay dëkke di julli guddi gépp bañ a tëdd benn yoon kenn ki ne man daal damay euh, dog sama diggante ak jigéen ñi bañ a takk soxna du ma denc ñoom ñëpp lañuy ñuy wax dañ koy jublu lu baax jàpp ne ak mbaax la dañ ko jubloo jaamoo yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ñu nettali soxna soxna yi soxna yi mu fi bàyyi woon nettali ko ne ko ah diw ak ñëw nañ fi laaj ñu wax leen nangam ñoom ñu wax nangam mu woo leen ne waa yéen yéen wax nangam ak nangam ak nangam ñu ko ah waaw mu ne ah man nag damay woor di dog damay woor di dog di ñàkk woor ci bu bu farata ji jàllee bu weeru koor jàllee weeru koor wi farata bu jàllee li ci des damay war léeg-léeg di ñàkk war léeg-léeg guddi gi itam danaa ci tëdd danaa ci danaa ci julli danaa ci naafila waaye danaa ci tëdd itam nelaw jigéen ñi nag damay ami soxna damay am ay soxna lii mooy sama yoon ku bëgg weneen yoon wutul sama yoon na xam ne bokkul ci man comme wan na leen ne ñoom loolu ñu jàppe woon ne lu baax la ak jaamu yàlla la bokku ci loola bidaa la mooy dañoo sosal seen bopp lu ñu jàpp ne dañ koy jaamoo yàlla te loola yonente bi diglewu ko defu ko kee taxawante naaj wi itam noonu la demee ku sosoon jullik boppam geneen ne farata it noonu la demee ku sosoon geneen koor ne waaw koor gi moom it nañ ci dolli weeru baraxlu wala weeru leneen mu doon farat ba tey noonu lay demee wala ko sosoon geneen aj ku sos dara loo xam ne da ko tuddeeg jaamu yàlla te yonente bi moom defu ko woon ko loolu ak anam la ci anamu xeet la ci bidaa boo xam ne mooy bidaa ci maanaam mi ko lislaam jox te mooy ak jaamu yàlla gu yàlla yoonalul ñàkk a yoonal gi ci ñaari anam la amee genn gi mooy da koo indiwut ci boppam mooy misaal mi toll nii geneen anam gi nag mooy jaamu yàlla gi mi ngi fi woon yonent bi indi na ko indi na ko kon nit ki sosut jaamu yàlla gi waaye nag da koo defe neneen nu bokk technique yonent bi doon defe sallallahu alayhi wa sallam julli yi juróomi julli farata yi nit ki juróom julli yooyu rek lay def waxut ne geneen jullik farata am na waaye day ñëw ci jullik tusbaar defe kon wóot ak na ko bi daan def te ne nii la defe gi nag ci nu ko daawut defe day feeñu ci ay anam moo yàlla li mu digle muy ay jaamu yàlla da cee am yooyu da cee tënk nit ñi da cee tënk nit ñi da leen cee tënk ci waxtu ne leen waxtu sàngam lañ koy defe ku ko def ci weneen waxtu te te bëgg ne weneen waxtu woowee mooy waxtoom kooku dafa def biddaa mooy jaamu yàlla gi da ko defe neneen nu bokkut ak ni ko yonent bi defe woon kon bu fekkee yàlla dafa tënk nit ñi ci waxtu ci jaamu yàlla sàngam ku ko ku soppi waxtu woowee te ne wam wax wo ca lañ ko war a kooku dafa def biddaa sosut jëf ji waaye defiin wi na sos yàlla yi dana tënk nit ñi ci yenn jaamu yàlla yi ci ab lim lim julli yi julli farata gu ci nekk daa am ab lim julli tusbaar ñeenti rakka la takkusaan ñeenti rakka la ab lim rakkee daa am lim bu yàlla bu yàlla tënk nit ñi ku ñëwoon nag moom lim boobee mu bañ cee tënku moom wut beneen limu boppam kooke bi daal la def mu ne tusbaar moom ñetti ràkk la koy def moom wala juróomi ràkk la koy def wala ñaari ràkk la koy def wala timis mu ne ñeent la koy def kooke itam bi daal la def mooy li mu li muy def sosu ko mu julli timis sosu ko julli tusbaar sosu ko waaye nag defiin wi la sos da koo defee nu bokkut ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def wala yàlla tënk nit ñi ci béréb béréb lu mel ne aj aj yàlla daa am béréb bu mu wax ne fa lañ koy defe ku ne woon ku ne woon moom feneen lay ajee moom day aji ak feneen la koy defee boobaa itam euh, dafa def biddaa gis nga aj gi yàlla tënk na ko ci béréb tënk na ko ci waxtu itam aj daa am waxtu wuñ koy def ku bëggoon def ci weneen waxtu bu demoon ba ci béréb yi ñu koy def waaye def ko ci weneen waxtu itam bi daal la def bu ko defoon ci waxtu yi ñu koy def waaye def ko ci beneen béréb bi daal la def ndax yàlla dañoo tënk moom mu teb bi tënk boobu ñetti anam yi tënk yooyu lu ci yàlla tënk nit ñi rek bu ko nit tebbee tërale ko neneen rek bi daal la def sosut jëf je waaye defiin wa la sos kon ñaari anam yooyu la bidaa bi euh, yor maanaam mi ko lislaam jox te buñ naan bidaa moo tax ñuy wax dëgg-dëgg bu ñu naan bidaa rek yam ci loolaa tax ñuy wax bidaa boobee mooy loo xam nit ki da ko sosal boppam te muy ak jaamu yàlla te muy ak jaamu yàlla mu sosal ko boppam walla sosu ko waaye da ko defee defiinu boppam bu wuute ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe atte yi nag atte yi aju ci biddaa kon xëy na war na war naa leer fi ne lan mooy biddaa dégg dégg bu dee maanaam cosaan mi cosaanu baat bi rekk ak maanaam mi ko lislaam jox te dëgg-dëgg moom tax di wax atte yi ci aju nag atte yi bu dee ma bidaa ci maanaam mi ko lislaam jox te mooy lu aju ci jaamu yàlla bu nit ki sos wala mu sos defiin wa la ca aju atte ya ca aju moom mooy xam ne bu xasee doon mel noonu rek ak réer la ak réer lépp lu mel noonu moom ak réer la ak réer la lu ñu bañ la itam luñ dul nangu la itam yàlla du ko nangu lu nit sosal boppam jaamu yàlla lu nit sosal boppam gu yonent bi musta def def lu ko yàlla du ko nangu te ak réer la du lu baax lu yonent bi daan def nit ñëw defe ko neneen tane ni mu ko defee lañ ko war a defe ba tey it ak réer la du lu baax du lu ñuy nangu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu waxin wu leer ci ay waxin yu wuute itam te leer wax na ne moom yonente bi sallallahu alayhi ku sos ci sunu mbir mii lu ci bokkul ku sos sunu mbir mii lu ci bokkul sunu mbir mi mooy diine ji ku ci sos lu ci bokkul dañ ko koy delloo mooy des ko nangu ku sos ci sunu mbir mii lu ci bokkul des ko koy delloo des ko nangu am ñu ko nettalee ne ku def defiin wu wuuteeg sunu defiin dañ ko koy delloo ku def defiin wu wuuteeg sunu defiin des ko koy delloo gis nga sos ak defiin ñaar yooyu sos gi mooy daawu ko mësu koo def moom nit kee ñëw defal ko boppam sosal ko boppam defin bi nag mooy lu yonte bi doon def la waaye nit ki moo ko defee neneen ñaar yooyu yëpp wax nañ ne lu ci nekk bidaa la ci maanaam ko lislaam bu ci mën di doon itam du lu rafet mukk duñ ko nangu mukk waxoon ne na ngeen topp samaw yoon ak yoonu ñi ma wuutu ñi ma wuutu te jub tey jubal ñi ma wuutu te jub tey jubal na ngeen topp seenu yoon topp sama yoon man te yem ci te moytu nag sos te moytu sos ndax lu ñu sos bidaa mi ngi ci jublu bidaa mii ñuy nuy wax ni ci maanaam mi ko mi ko lislaam la kon bidaa boobu moom amul ci lenn lu baax amu ci lenn lu rafet amu ci lenn lu ñu nangu mooy biddaa ci maanaam mi ko lislaam jox li ñu tudd maanaam charia biddaa nag buñ ci jubloo rek nag maanaam cosaan mi loo xam ne mën nañ koo tudde biddaa ci maanaam cosaan mi loolu moom du caa genu léppay ak réer du caa genu léppay lu bon kon mën naa mën na caa am lu doon ak réer mën na caa doo am lu doon ak njub mën na caa doon mën na caa am lu ñu nangu mën na caa am lu ñu nanguwut mën na caa am lu rafet mën na caa am lu rafetut mën na caa am lu ñu rafetlu mën na caa am lu ñu rafetluwut kon moo amul benn àtte bu dee maanaamee nag moom benn àtte rek la am lépp loo xam ne bidaa la ci maanaam lislaam mi moom dara baaxu ci dara doonu ci ak njub bu dee nag ci maanaam cosaan mi rek la bu ñu waxee bidaa te jublu ci maanaam cosaan mi rek la wax ne bidaa la mën naa doon lu baax mën naa doon lu baaxut mën naa doon ak njub mën naa doon ak réer loolu moom la borom xam-xam yi ëpp ëpp ëpp wax ñi ko waxut sax ñu mel ne sax dañ koy weddi am na ñoo xam ne mel dañuy weddi loolu dañ naan bidaa daal lu ko xas tudd rek mënut baax am na ñuy wax loolu waaye teewul. boo wax ak ñoom da nga wax ak ñoom wax ak ñoom bañ nangu bañ nangu lii lii ngay wax yow xëy na kon wax wuute rek waaye dëgg-dëgg euh, ñëpp dëppoo nañ ci loolu ñëpp dëppoo nañ ci ne euh, luñ mën a mën nañoo tuddee mbir bidaa ba noppi mu baax waaye nag day fekk jubluwuñ ci maanaam mi ko lislaam jox waaye maanaam cosaan ma lañ ci jublu ñi ko waxal seen bopp nag moom bokk na ci al waxal na boppam ne li ñu sos ñaari xeet la lenn li mooy lu wuuteeg alquran wuuteeg sunna wuuteeg doxiinu saxaaba ya wuuteeg lu borom xam-xam yi dëppoo kon lu ñu sos tam wuuteeg yooyu nee na wenn xeet la te mooy bidaa bi doon ak réer bidaa bi doon ak réer mooy lu ñu sos te mu wuuteeg alquran wuuteeg sunna wuuteeg doxinu saxaaba yi wuuteeg li waram xam-xam yi dëppoo kon mooy nit ki ko sosal boppam rek amul lenn cëslaay mu ne weneen xeetu bidaa mooy lu ñu sos waaye lu baax la lu baax lu ñu sos loo xam ne wuutewut ak lenn ci yooyu ñu tuddoon safaan wu ceeg lenn loola nee na lu ñu sos la waaye du luñ bañ luñ sos la waaye du luñ bañ kon war na luñ sos baatu bidaa rek manees na ko wax ci mbir ba noppi mu am lu mu doon lu baax manees na ko wax ci mbir tam mu doon lu bon bu bon ba mooy ba wuuteeg yi mu wax ba ca baax mooy bi wuute wut ak yi mu wax loolu wax na ko waxaat ko feneen tam ne bidaa ñaar la bidaa bu baax buñ nangu ak bidaa buñ nanguwul bi dëppook sunna mooy biñ nangu bi wuteeg sunna mooy biñ nangu wut bi mu ko waxee daal di sukkandiku moom Seydina alimaamu Shaafi sukkandiku ji la Seydina Omar waxoon ne lii de bidaa bu rafet la mu ne loolu moo xam ne bidaa bu rafet la bidaa la waaye lu rafet la bidaa la ci maanaam cosaanu baat am na borom xam-xam bu mag bu ñuy wax al Izz am na boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax al Izz ibn Abdissalaam boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax al izz ibn abdissalaam mu wax ne bidaa mooy def def lu amutoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi ci xamutoon mooy luñ ci daawul def waaye nag moom sax dane bidaa atte yi am ci lislaam yépp mën naa am ci bidaa mooy bidaa nee na mën naa nekk sax lu war farata bida bo xamne farata la neena sax man na am bida bo xamne lu aram la am na dana kon dana nek lu war bida, biddaa dana nek lu aram, dana nek lu ñu sopp dana nek lu ñu sib dana nek lu dagan juroomi àtte yoy moy àtte yam ci l'islam Mir mu ne ben ci juroomi àtte yi rek lay am amul benen àtte amut neena juroomi juróomi yi yep nak bida dana am dana leen am dana am fu muy nekkee lu war am fu muy nekkee lu araam am fu muy nekkee lu ñu sopp am fu muy nekk lu ñu siib am fu muy nekkee lu dagan ne mu ngi aju rekk ci cëslaay cëslaay la cëslaay bi daal di rek cëslaay bi ci la aju cëslaay la mooy tax mu doon lu war wala mu doon lu araam wala mu doon lu ñu sopp wala lu ñu sib wala lu dagan ngër yi itam ñeenti ngër yi nga xam ne ñooy ngir yi ahlu sunna wal jamaa ngër mu ci ne boroom xam-xam yi ngër ngir moomee am na ca ñu waxal seen bopp ne bidaa am na ci lu baax am na ci lu baaxul mën nañoo tudde mbir bidaa ba noppi mu baax mën nañu koo tudde bidaa itam mu bañ a baax bu dee ci ngirum Al Hanafiyah, ngir al imam abu Hanifa. ki ñox ibn abidin wax na ne bidaa man na nek farata mën na nek farata wa nañ bàyyi xel ne ñom ñi wax ñepp naan bidaa bu ba ñu koy jappé bidaa ñak settantal moo tax ñu japp ko bidaa ci maanaam ko lislaam do ku ko ku tudde bidaa na ci maanaam cosaan bi moom sañ nga ko ndax mom la waye nak ku ko jappé bidaa ci maanaam ko do dañuy jàpp ne dafa settantalut moo tax mu def loola waaye bu settantaloon du ko ko du ko ko jàppe ndax luñ jàppee bidaa ci maanaam ni ko lislaam jox ni ñu ko waxoon ci njëlbeen gi rek mooy moom munta baax lu baax amu ci lu baax amu ci mooy al bidaa maana charan lu baax amu ci bokk na ci yi nga xam ne am nañu ko ca dugal te jàpp ne ñàkk settantal moo tax ñu dugal ko ca li ñuy wax gàmm gàmm gàmm mooy di dundal guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñal wala giñ jàpp na ci la feeñal ci la gën àddina ak it di fàttaliku ñu baax ñi di dajaloo jàpp ay bis di ci fàttaliku nit ñu baax ñi loolu loolu am na ñoo xam ne lépp dañ ko dugal ci bidaa bi nga xam ne munta baax ak di daje di zikr daje di dikr mooy li nga xam ne mutasawif yi def daje di tuddu yalla andando di def amna ñu ñu ko di bidaa bi nga xam mu tabax mo ci limaale ak di sakkal sa bop ab lim ci xéetu tuddu yalla moy wërd li ñu tudd wërd rek wërd ndax da naka weesuwul nit ki sàkkal boppam ab lim ci tudd yàlla sàngam sàkkal boppam waxtu itam waxtu mu koy def am na ñoo xam ne yu mel noonu yépp ñoom dañ koo dugal ci bidaa bi baaxul munta baax ndax bidaa ci maanaam ñu ko lislaam jox moom lañ ko jàppe nun nag ñu jàpp ne loolu euh, ñàkk setantal moo leen ko yóbbee waaye buñ setantaloon xam ne bokku li tax mooy buñ delloo ci liñ liñ ne woon mooy bidaa bi doon ak réer te munta baax te mooy bidaa ci maanaam mi ko lislaam jox mooy loo xam ne ak jaamu yàlla la jëf ji jaamu yàlla la la ko nit ki jàppe te benn yonent bi mosu koo def mosu koo digle benn walla bu def lu mas def lay itam nit ki moo daa soppi defii ni nan xool yi ñu wax yépp buñ ko xoolee ndax loolu am na ci buñ xoolee gàmm ndax dañ ciy def jaamu yàlla bu yonent bi musta def wala dañ ciy def lu mu daan def waaye defe ko neneen bu loolu amee rek ñu ne biddaa la buñ ko xoolee amoon nag duñ ko mën a jàppe biddaa bi bi nga xam ne mun tabaax baax ku ne biddaa nag te jublu ci maanaam cosaan mi rek dëgg la ndax mooy lu sosu la ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa ndax amutoon jamono amutoon jamono saxaaba yi kon lu sosu la waaye boo jubloo bidaa nag ci maanaam mi ko lislaam jox te moom mënta baax loolu moom da ngay xool lañ cee def gàmmu lan lañ ciy def gàmmu luñ ciy def bu dee fii nu xam moom gàmmu luñ ciy def mooy tudd yàlla tudd yàlla lañ ciy def tudd yàlla lañ ciy def bernde lañ ciy def bernde mooy lan bernde mooy joxe alal ngir yàlla joxe alal ngir yàlla alal ji aw ñam lañ koy def def aw ñam di ko joxe ngir yàlla lu ñu nekk ak lu ñu naan tudd yàlla fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliku fàttaliku ay jaar jaaram loolu la ñuy def ci gàmm ci fi nu xam noonu loolu ndax am na ci lenn lool léef sos la tudd yàlla du lu ñu sos yonent bi da ko daan def daan ko digle joxe alal ci yoonu yàlla du lu ñu sos da ko daan def daan ko digle di waxtaane fàttaliku ñu baax na di leen waxtaane ak moom ñu koy waxtaane di waxtaane ay ndigalam di waxtaane ay jikkoom loolu itam du lu ñu sos kon amu ci luñ sos amu ci luñ sos defeen yi itam fooguma ne am na defeen wuñ ci def bopp bokk te moom ko daan defe tudd yàlla yi ñuy tudd génnut yu jóge ci alxuraan ak sunna te bu doon lu nit fental boppam sax wàññiwut ayut tudd yàlla bu nit fental boppam nit mën naa waxal ci làkku boppam loo xam da cay kañ yàlla wala da cay ñaan yàlla te ñaan ci lak bopp wala boo cay kañ di ko bàkk sañ na ko bu ko waxoon ci arab bi boppam itam sañ na ko ndax loolu wane sa yëg-yëg la sa diggante ak yàlla sàkkantuma nag bu fekkee da ngay wax sax far du loo loo loo loo sàkkal sa bopp waaye lu la yonente bi daan wax ngay wax wala nekk ci alxuraan moom ngay wax loola duñ mën a wax ne tudd yàlla guñ defe kan, neneen daanaka buñ defee neen sax mënu ci am dëgg-dëgg ñu ko seetloo ci tudd yàlla ndax yëg-yëgu nit la digganteem ak digganteem yi ci des yëpp buñ ko seetloo noonu lay demee li ci am rek dëgg-dëgg mooy lu bari lu ñeneen ñi jàppe bi daa te mu tasawuf yi di ko def ci xeet ñu wax yépp la ci am dëgg-dëgg mooy day lool yàlla tënku ci nit ñi tënku leen ci ñetti anam yi tënk yi ñu waxoon tënku leen ci ci jamono tënku leen ci ci lim tënku leen ci ci waxtu yàlla nag lu la tënkul yow sañ ngaa tànnal sa bopp lim la tënk moom amatoo ci looy tànn tusbaar tënk na la ci waxtu amatoo sañ-sañu tànn aw waxtu weneen way way julli tusbaar tënk na la cib lim amatoo sañ-sañu yow di wut sa beneen limu bopp aj tënk na la ci béréb bi ñuy aje amatoo sañ-sañu wutal sa beneen béréb yow boo ko defee lum la tënkut nag te lim la tënkut mooy li dul farata li dul farata yàlla da ca xiirtal jullit ñi rek te tënku leen da leen a xiirtal ci tudd yàlla udkurullaha dikran kasira wasabbixuhu bukratan wa asila loolu da leen cee xiirtal waaye tënku leen ci ne leen dee leen ko def sàngam waxu leen ko ko def sàngam waxu leen ko dee ko defee béréb sàngam waxu leen kon tënku leen ci ñim tënkul nag ñoom ñu tànnal seen bopp waxtu di ko ca sañ nañ ko ndax yàlla tënku leen ci waxtu kon sañ nañoo tànnal seen bopp ñoom waxtu am ku ne man tudd yàlla gi ma yàlla digal xiirtal ma ci man dama koy def ginnaaw mu julee takkusaan ba noppi ak mu julee suba ba noppi sañ na ko tànnal ma ndax yàlla tënku ko ci tënku ko ci lim tudd leen yàlla lu bari rek la wax nga ne man istighfar dama ciy def nàngam salaatu ala nabi dama ciy def nàngam ab lim boo xam ne yaa ko sàkkal sa bopp sañ nga ko ndax kenn tënku la ci ci lim sañ nga cee tànnal sa bopp yow lim lim boo ci boo ci tënk sa bopp tënku la ci béréb sañ ngaa tënk sa bopp ci béréb sañ nga ne man damay dem béréb sàngam di fa defee nàngam ndax nàngam jooju yàlla waxut ne béréb sàngam lañ ko war waxut ne benn béréb lañ ko war def na leen ci rek ngeen koy def yow nag bu la neexee nga tànn fa nga koy def bu neexee yow nga tànn béréb ba nga koy defee bu nga tànn lim ba nga cay def bu la neexee nga tànn waxtu ba nga koy def weesuwut loolu lépp lu ñuy diingat ci xeet yooyu buñ ko settantalee tas ko dëgg-dëgg weesuwut loolu weesuwut ne rek lu yàlla tënkul jullit ñi la am ci ñoo xam ne ñoom ñoo ca tënk seen bopp loola nag war nañ koo sañ la yàlla tënk la yàlla tënkee jullit ñi lañ sañuta tànnal seen bopp leneen waaye liñ leen xiirtal rek bàyyi leen sañ nañoo tënk seen bopp ñoom sañ nañu wut ab lim sañ na ne ñun guddi gi yonent bi feeñoon nun dañ ci dajaloo di ci def li ñu yàlla xiirtaloon xiirtal nanu ci tudd yàlla xiirtal nanu ci bernde xiirtal nanu ci di fàttaliku di fàttaliku gaañu baax ñi nun dañuy tànn guddi googu di ko ci def sañ nañ ko waaye dañu tànn rek waxtu tànn waxtu rek lañ def waaye la ñuy def moom doonu luñ sos luñ sos doonu luñ sos waxtu wa lañ tànnal seen bopp ndax yàlla tënku leen ca waxtu xeetu wér di itam noonu la moom itam tënkuñ leen ci ab lim ñoom ñu tànnal seen bopp ab lim tànnal seen bopp ab lim bu dee bërëb bi noonu ñoo dañuy daje ji Touba fukki fan juróom-ñett ci weeru digg yu gàmm dañuy daja ji Touba bu leen neexee waaye bu ñu fi dajee lu ñu fiy def defuñ fi jaamu yàlla guñ sosal seen bopp defuñ fi jàmm yàlla yonent bi daan def itam te defe ko neneen waaye lu yonent bi daan def rek lañ daan lañ ciy def na mu ko daan defe kese itam lañ koy def liñ ciy def daal ñoom mooy tànnal seen boppu gërëb ne nañ fa daje ji di ko fa defee loolu sañ nañ ko sañ ñu tànnal seen boppu béréb di fa aji ndax aji yàlla da koo daje tënk da koo tënk ci béréb waaye nag lu mu tënkul ci gërëb bu leen neexee ñoom ñu tànnal seen bopp béréb di ko ko def kon loolu lu jara setantal da foog naa ku ko setantal dëgg-dëgg lu bari lu ñuy tudde biddaa da bi nga xamne ne ta bax baax duñ ko ko duñ ko ko dudet lolu motax ba borom xam-xam yi am ci naka jek ñuy wax ne gamu ko ne biddaa lay do do gamu nak mo ngi ci des ñoo yem àtte yeneen yi ak yi mo waxut dañ dugg fofu rek ñoyam atte ku mel ne al alusi ci tafsir mi tudde ruuxul bayaan da ci wax ne bokk na ci màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci màggal ko muy di ko gàmmul gàmm di dundal gàmm bu fekkee defuñ fa lu aay gis nga buñ ca deful lu aay buñ ca deful lu aay gàmm ci màggal yonente bi la bokk bu fekkee defuñ ca lu aay daal di wax ne ak suyuut yi nee na nun danoo sopp ci nun danoo sopp ci nun nuy feeñalu cant ci feeñul yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy guddi gi mu feeñ ci feeñalu cant kon mooy ñooñu ay waral xam-xam ne ñoo xam ne dañ ne gàmmu ci màggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam la bokk feeñal ak cant li yàlla feeñal yonente bi ak li yonente bi defal nit ñi ni ci sante yalla ci guddigo itam ci la bok as sahawi batay ci bir gàmmu mu wax ne ne jitu won ken musu ci gàmmu li ñu wax gàmmu nyat musu ko ci def bi jamono yent bi ak jamono sahaba ak jamono ñat ñalen ñu top sen ginaaw ken musu ko ci def fenn ci rewi julit ni waye mujju na jullit ñëpp di ko def di ko def di ci sarxe xeeti sarxe yu di ci fàttaliku jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ànd nañ di ko def mooy mujj nañ ko rafetlu ñoom ñëpp di ko def kon dañ ko sos waaye lu ñu rafetlu la lu ñu ànd la lu ñu dëpp la ibnu taymiya itam wax ne màggal gàmm guddi gàmm nee na nit mën na koo def ba noppi am ci yool bu mag nit mën na koo def am ci yool bu mag ndax ak jubloom daa rafet tey da caa jublu màggal yonente bi sallallahu alayhi loolu daal liñ jubloo na feeñal dëgg rek mooy ni ko sëriñ sëriñ Mor waxe ci tàmbali bi ne bi daal lu jar di waxtaane la ndax wuute gi bari na ci ñii lu jóg ñu ne moom la lu jóg ñu ne biddaa la am ñoo xam ne itam daanaka ñoom lu leen neex def duñ tënk seen bopp ci dara lu leen neex def ak ñoo xam ne lu def rek ñu ne ñaar yëpp dañoo ëppal dañoo ëppal ñi xam ne lu leen neex def ñu bàyyi xel lenn ak ñi nga xam ne itam nag lu jóg rek ñu ne biddaa la ñëpp ëppal moo tax mu jar bi euh, ñu koy nafaraat di ko settantal di xool dëgg-dëgg mbir yi fan la tege ak dëgg-dëgg bidaa mooy lan bidaa bi munta baax mukk mukk mukk mooy lan ak lu ñu mën a tudde bidaa tam mën a baax itam mooy lan loolu sëriñ sëñ Mor loolu bëggoon ubbee waxtaan wi noo ngi santaat jéggluwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf sëñ Seexuna def naa waxtaan wi leer na nañ leeral na bidaa baat bi wane ne dafa seetlu ko ñaari xaaj muy maanaam mi nga xam ne day maanaam cosaan mi li baat bi tekki maanaam bi nga xam ne bu ko waxee dañ ci jullu maanaam bi ko lislaam dégge wane ne maanaam mi nga xam ne lu ko lislaam dégge wax buñ ci tuddé bida so baba luñ nangoot lay doon ta duñ ko massa a nangu xam day lu sos lo xamé ne sa sallam ko def musuko diglé defuñ ko yit mu yëg ko bàyyi wala bok eh, du lu amoon na waaye def dañ ko def na defin yin wu bokk te boobu yén saa son defe ba tey fekkee nañ ci maanaam bi ko lislaam dégg la loolu lu ñu delloo la kenn du ko nangu mooy baaxut te du baax mooy yi ñu tudd ak réer la waaye ni mu leer la nag mooy ñaare bi leer indiwaal na ay ay ay tontu yoo xam ne amoon na ci ay wóote yu baree baree baree bari ci ñiy gëstu ci fànn googu nga xam ne dégginu baat bi mooy rek luy door am loo xam ne amutoon luy door am mooy loolu nag mën naa seetlu ko ci xaaji àtte diine yépp mën naa nekk gar ba daa baax maanaam bi daa baax farata lay doon wala mu nekk bi daa bu ñu sopp wala bu ñu sib wala bu xaram wala bu dagan muy juróom yi nga xam ne moo tënk àtte lislaam yépp mën na càggaar waaye li am solo nag ci lim ci leer laale mooy dañoo yàgg soow ci bidaa bu rafet ak bu ñaaw amut buñ ne bidaa rek ñoom dañoo boole lépp sànni ne buñ xasee ne bidaal rek mu baaxut ak luñ ci mën a jublu day mel ni kon tënk na ne bu dee bu njëkk bi nga xam ne dafa dafa aju ci dégginu lislaam moom dafa tënku fenn mam mam lu ci lu ci dugg rek mam bi dal bi daal bu waye sànni waaye nag bu fekkee ñëw nañ ci bi nak mam yoy yep na ci tab man na nek bu bu rafet man na nek bu ñaaw werante tay ñu xamne ñi sanni lepp ñenn dañ ci ñi koy ñi koy wedd dañu indi ay lay di wonne al ci misal ñu alquran bi ñëwee amutoon ay tomb amutoon ay masque gannaaw bi lañ ko ci def ndax kon lol lu ban la jakkay yon yoon saa san bu fi nekk amutoon amutoon radio yi nga xam ci lañu jandi ñu bandi ci jandi ñu amutoon waaye lépp na kon xeyna dañ ci ràññale wutan li ni mako leralé may ñaari deggin yi wute kon bu dé ci deggin wi nga xam mom day delu ci cosaanu baat bi nga xam sidna Omar baat bu mo waxoon ne bidaay bi bu baax xani ni da fay delu ci ci cosaanu baat ba kon ci lañu ñuy déggee kon ndekk bi la rafet man naa bi da bu ñama naam naa am te bu ñu déggee ne yépp nako ko gar kon inda ci ay ay ay ay ay leral, yu am solo yu mata xam yo xam nit ki dana aj mu xame ko mu leral nit ñi nga xam nak dañuy jël yenn yi sanni ko tam misaal lu melni gam lu melni magal wala yenen yu demee noonu xam dañuy japp rek mom dañ ko yéegal ci beda ba nga xam ne day aju ci dégginu lislaam yi nee na xëy na loolu waral ndax leeral na ne bu ñu xoolee lenn ci yax ñu ñuy sànni yee amu ci mooy ëmu ci lu ñu sos loo xam ne yéen saa sallam ko def amu ci lu ci def lu mu daa def it defe ko defin bu bokk taw ko daa def tudd tudd yenn yi ca def yépp ne bu dee kar la ku ne xam naa ne zikar du lu ñu sos ci diine jàng alxuraan lu ñu sos ci diine joxe sa àll ngir yàlla lu ñu sos ci diine Amana bu de ci walu ñi nga xam dañu dañoo mu leeral itam ñi nga xam dañu dañoo bi da wut ab ci nangam di def sosal ko sabab moy bu dee bida bele nga xam dafay dugg ci ni ko lislaam déggee man day tabbi ci mbir mo xam lissam dala ja teunk dala teunk ci bërëb wala mu teunk la ci waxtu wala mu teunk la ci aw defin bu de fi nak moom sunu dama xam na tuddu len yalla lu bari rek waye teunk la fenn tënku la ci bërëb tënku la ci waxtu la ci am lim itam kon am nga sañ sañ set lim bu la sehat sop set waxtu wala sop set barab la sop nga da koy def gam gàmm magal mi len ak len kon inna kon ay tontu ci yo xamne ne yag na ci am eh, ay wote yag na ci am yu bare bare bare ba yoo xam ne ni mu demale kon ndeke dal banyak xasse xamne bi da nyari ñaari xaal la rek may deggine yu ko l'islam déggee ak déggiinu baatu cosaan bi su de deggine yu ko l'islam déggee may lepp loo xam dañ ko sos ci diine muy ak Allah ak jaamu yalla la nga sos sa jaamu yalla ak bop ci misal farata nga dolli ci benen farata wala wala deme non wala bok lu melni tesbar ñent la nga nga bu ko def rakka nga def defin la anam goga mom luñ ci mëna duggal dugal rek ci jaamu yalla xam ne bokk sax nak la ko defal bokk lu nekk na lool lu ñu sanel lu nangul la waaye bu ñëwé ci xaj bi nak mom nga moy ci mooy cosaanu ci san baat bi mom lu ne mëna ci am mëna nekk lu lu lu doon am na ca mëna na doon lo xamne farata la mu indi ci ay misaal mel ne ilmul kalaam xam day dañ ci mëna a aar lislaam kon farata la xam-xamu naxwu jang ko faral ndax ci lañu mëna xamé alquran xamee ci xam hadith man ko ci leral kon kon lol day mel bi daal ndax euh ñu sum bàyyiwu fi woon xam-xam yoyu gannaawum la waye na ko mëna japp jàpp ne farata la ngir lam ñu yobbu ndax lu lay yobbu ci farata kon day melni ni farata la euh, man na do nit lu ñaaw ndax lim tuddoon ci fekke nit ki dafa wax dama nisar nangam fekke la nga lu bax la dang ko weyel waaye soo amee lu ca baaxoon nag loolu dañ ko dindi loolu mu ngi ko doon leeral sax ci biir biir anamu dégg nu lislaam bi ci ñi nga xam ne ñooy mu doon misaal kan wax na damay woor waaye damay taxaw ci naaj yu yenn ci duma toog duma wax ak nit ñi kon da caa da caa dugg ci bokkut ñett ña beroon kii ne damay dëkke woon dootuma dog kii ne damay beru jigéen ñi di jàmm yàlla rek kii ne damay fanaane julli lam leen wax leer leen lu ci dama koy def damay nelaw ci guddi aslëf di ci jaam yàlla aslëf damay woor waaye damay dog dama am sama ay soxna lii mooy sama sunna te ko siib sama sunna boo ci man kon eh, yaakaar naa bu ñu déggee ñaari anam yëpp rek kon dana mën a leer ci suñu bopp ci na kon buñ ne bidaa bu rafet eh, mën naa am waaye kon ci kaw déggiin wi ko déggiinu cosaan wi lay doon waaye bu fekkee déggiinu wele nag mu moom lépp la lu ñu sànni kon suñu seex naa jërëjëf tam yi am na solo euh, mat na sëkk ñaan suñu boom yokk xam-xam bi gën a leeral dënn bi gën laa dolli tawféex suñu boom fayandu la incha allah suba ak jàmm euh, ñu war a waxtaani al Cheikh Ahmad Bamba al Abdul Xadim raditu bil islaami diinan al Cheikh Ahmad Bamba al Abdul Xadim sit waa doon gi mu doon jaamu yàlla doon liggéeyal ko ci yom saa waaye leeral nag raditu billahi bisaam diin maanaam def gën defoon lislaam muy diineem ne gërunu muy diineem leeral lool ki ko def incha allah sëriñ ahmadu mbàkke moom murtada cheikh fati fall sëriñ ahmadu mbàkke moom daaru monte incha allah suubu mooy ñëw jàngatal na tomb boobu ñuy sant baax baax yi ñaan suñu boon dégg ak topp ñu xam ne incha allah eh, waxtaan wi lépp Lamp Fall télévision ñu ko defee en waye nañ ko mën ko toppaat min wi inshallah allah bu dese tout dañ ko ci wat al Muridiyah ma it allah dañ ko jàllale gannaaw nafila jant bi FM itam dañ ko jàllale gannaaw nafila kon ku ci ku ci am lolu ci bëgg ko toppaat rek bo topé ben sen seen al Muridiyah lam fal TV ñom dañ ko jàllale tout en direct ci télévision bi waye bu min wi dese dañ ko dañ ko wat kon kuma rawon rek man nga ko dakkaat foofu al Muridiyah ak jant bi FM inshallah allah ñaan su ngon defoon dégg ak toog tawfiq سألك اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله هذا الذين حافظوا على سيام